maa ngi lay ziar boobu. maa ngi lay delloo ziar sama xarit. sama maa ngi si <laughs> jàmm alhamdulilah. naka coono yi. waaw ñu ngi nii ñu ngi daw rek ñu ngi daw. waa Mbuur nga fa léegi laa fa léegi laa fa jógee nii. nga am combat MMA loolu nag dinaa ñëw vendredi ñu yaatal ci mais combat bi nga xamante ne moom mooy bi am ci réew mi ñu toogoon ba xel yi commencé ñaaw. gën a làmb du am ci saison deux mille vingt deux mille vingt et un bi Gaston ak yeneen promoteurs yi. fexe naxtante ak état bañ ubbil leen ñu làmb bañ ubbil ñu làmb ji yaakaar naa ne sax mois de juin nga war a bëre gas na nag dem nee na mois de mai la ko def maanaam nouvelle ko dundee balaa ñu waaw xam naa MMA moom da damay xaar ba nga ñëw. boo ñëwee ñu yaatal si. wax si liñ ci war a wax yëpp mais comme tey dañ ñëw si làmb euh, si làmb rek laa bëgg ñu wax si tey ba nga ñëw donc waaw comme ni nga ko waxee rek euh, Gaston moo ñu woo pour ñu ñëw jéem a xool naka la ñuy def pour combat yi mën a am. waaw date yi nag yaa ma ko annoncé nii man wax dëgg yàlla amaguma ci dat non maa ko jël démb kay. waaw donc man li ma amagum rek mooy nañu ñëw waxtaan. ñu xool naka la ñuy fexe pour làmb jiw bi. pour combat yi taxaw. donc ñu ngi dégg la de guerre Eumeu Sène le avril. yal na yàlla mottali. parce que événement la yoo xamante ni moom la làmb soxla moom lay xaar. ñun aussi bu ñu bëree mais baax na bu ñu bëree juin baax na bu ñu bëree juillet baax na en tout cas Gaston ñu ngi koy ñaanal daal si li mu mën a wax euh, li mu mëbët ñu ñaanal ko yàlla may ko kàttan ba mu mottali ko parce que actuellement li ma waxoon rek làmb promoteur yi dugg la gën a soxla ko promoteur yi génn nañu boole xol yi ku si nekk ñu yéenañ te jàmm du dëkk tey bi ñu oowee bu njëkk boo xoolee sax làmb da doon compliqué pour nga dajale ay mbër problème la mais boo xoolee léegi esprit yi wax naa ko ñu ngi changé mooy sport la sport day boole warul xàjjale bu ñu bu ñu dajewul si biir làmb jour combat bi mën nañu kaf mën nañu ree mën nañu def lépp parce que ay nit lañ ñëpp. biir géew bi nag dañuy liggéey ku si mën a rayanteeg su moom da ngay rayanteeg moom bu jeexee après jeex na waaw loolu moo ñu indi tey di ñaan yàlla yàlla moo tali. war fee jàkkaarloo tamit ak sa adversaire combat ba mu taxawee ba léegi yaakaar naa ne jàkkaarloo goo leen ndax ne mën nañu xaar mu tàng nag comme ngeen ko doon defee sportif nga sportif la waaye nag soxla nañ tey combat bi ngeen jaay ko comme ni ko Gaston waxee ak man démb ba ba ba ba yenn société yu mag yi ñu doon gis ci làmb ñu ñëwaat ci làmb. waaw sunu combat mënul sedd moom mënul sedd. que jour bu ñu waxee ne ANACIM taxaw na si la coow li commencé ba tey kon dara mënu si sedd xanaa day gën a tàng waaw day gën a tàng moom mais sedd moom mënu ko def. kon combat bi jàpp nga ni tàng bu njëkk. waaw ah day tàng parce que ñaari jàmbaar lañu lañ lañu boole euh, ku si nekk bëgg combat bi nag man ma bëgg ko lool moom xam naa ne bëgg na combat mais man fonk naa ko lool kon combat bi mënul sedd mënul yomb. combat bi jour bi mu taxaw da nga ni ko gis naa la nga def benn sortie nga ni dama mbëri dañ laa ragal ñi la ñi la ragal man bokkuma ci est-ce que loolu poussé wu la sax pour nga jël combat bi. non ne ni ragaloo. non man yàgg naa wax ni bi ñu bëree ba tey mosuma gis fu mu taxawee nañ naa ko may revanche loolu bi yàgg naa ko wax boobu waxagul loolu euh, yooyu yëpp système système de communication la xam nga nit mën na bëgg a combat tey taxaw ni mbër dañ ma ragal mais loolu ñi nga xam ne ay mbër lañu dañu xam mbëri ragalante wuñu mbër ragal amu ci mbër yëpp ay guerrier lañ ay sanguinaire lañ système de communication nag pour am combat euh, boo dee mbër da nga koy xam waaw mais xaj na mbër yi ma wax dañ ko ragal man boolewu ma ci a bu site woon ay turne diwlu dañ ma ragal ñooñu mën a xam mais bu nee mbër yëpp dañ ma ragal man yaakaar naa boolewu ma ci xanaa hmm. waaw déedéet. bu la ci boole ma cee boole non mënu ma ci boole non na wax ñeneen ñi mais man mënu ma boole. loolu loolu kon poussé wu la pour nga jël combat bi. dama ko war a may revanche soxla na ko may naa ko revanche. Balla Gaye mu pare à 100 pour cent comme ni ñu koy waxee est ce que yomb naa jëflanteel Bombardier non làmb moom kuy bu ut lu yomb bu yow nga bàyyi ko defi leneen dama koy ñaanal wér ñaanal sa bopp wér ba bés ba ñu jëflante parce que affaire affaire yomb ak ku pare cent pour cent soixante pour cent man yooyu du ma ko calculer man daal su may amee combat li may calculer mooy pare nga à cent pour cent comme man li may daj yaa ngi koy daj donc su ma la daanee damay jàpp ni ku pare à cent pour cent laa bëreel hmm. mais di ay calculer soixante pour cent quarante pour cent man doxee ma noonu man li ma gëm rek mooy combattant la adversaire la mu ngi entraîné comme man ni may entraîné yaa ngi daj ay coono yu bare bare bare pour dóor dóoraat parce que moom fayu la bëgg ak lu mën a xew moom dégg nga ba ko waxee am nga combat nee na la yow tamit na xam ne am nga combat bu baax. man sport dafa lu ma bëgg la bu sax làmb dama ko bëgg donc kon daj ay coono moom waxatuñ ko su ma demee nag ba xam ne la ma doon def mënatuma ko man maay bàyyil sama bopp mais tant que maa koy ko ciy na am naa combat <laughs> mais moom am na combat bu bu mag a mag a mag sax. sa bi ngay waajal pour mois de mars du benn la sport de combat yëpp boo xoolee soixante pour cent wala soixante pour cent dix soixante dix pour cent yi parce que taxawaay yi sorianto wuñu benn la xeex bi benn la bëre moo fa nekk kon préparer combat MMA daf may permettre sax man ma ma nekk tout le temps di compétir waaw daf may arrange sax au contraire waaw. mais buñ la obligé pour nga wàññi a nag. waaw man poids sonalu ma man bi ma amee par exemple. Euh, presque vingt ans laay def ay cent cent cent dix huit kilos kon man poids euh, parce que dañu cent cent dix kilos yu normal rek man nga si def sport boo bëgg a def kon man problème mu poids aw ma ma si problème wàññi kooku yokk kooku man boo seetlee presque ñu bëri bu ñu ma xamee ba léegi sax benn nenn lañ ma xamee mooy benn pois laa indi. looy wax say supérieur est-ce que na nañoo xaar tey bu ar bu bu Bombardier sumee ko ci géew bu ñu gis forme bu mu andi woon contre la Gaye wala forme bu ko mais bu ko raw la ñuy gis bu ko raw la ñuy gis liggéey bu tar laay def. bu tar samay supporters nañu dalal seen xel bu baax te xam ni fa ma la ma doon def incha allah moom lay defan waaw koy fàttali nga ma sax santaan ñi nga jël naa ko moom tamit damay denc ay vidéo rek Mathia nee na yow yaa ko wax ne da nga nekk roi da nga nekkaat roi des waaw. te neen da koo gëm. maa ko wax xam nga tey boo nee damay nekkaat pour une troisième fois da wax ne si kàttanu yàlla parce que xam nga ñun dafa am lu ñuy déggee. tey bi ma wax ni naa doonaat roi des arènes deuxième fois ñu am ñu ko gëm am ñu ko gëmuloon mais toujours damay wax ne si kàttanu yàlla ma bëgg te lu ma gëm la lu doxee la mu ngi sunu kanam li may wax nii sunu kanam la nekk incha allah rabbi yàlla mën na ko def te lu ma gëm laa wax nag mën naa ko nekkaat pour troisième fois. mën naa ko nekk bokkul ak dama koy nekkaat bu njëkk moom da nga dogg bi. nekk far force dañuy da ngay wax si si si si si si palaasu yàlla man waxee ma noonu man li ma bëgg laa wax. ak li may jëf pour def loolu bëgg naa ne roi des arènes pour troisième fois incha allah rabi dinaa ko doonaat waaw. sa digganteeg Lac de Guiers du ngeen bëri. non kii sama jarbaat la kii du lamb bool du affaire lamb affaire famila la kii sama jarbaat la kon waxi lamb moom xam naa ni ba ma koy ba may ba may wax ni waaw loolu moom defe naa. boobu lamb déedéet kii bi ñuy bi ñuy seq di jëflante boobu tout tànk la. kon làmb moom mënuñoo boole si àdduna. suñu suñu suñu suñu suñu mbir dafa dépassé dafa dafa jiitu làmb. ndaamali lay bëri. waaw ndaamali lay bëri ñoom ñaar xamante nañu ay champion lañu ku si nekk respecté na sa morom nañ ñoom ñaar ñaari yoon euh, ku si nekk xam na lu sa morom di saf fi mu nekk nii jaratuñ sax conseiller conseil yu bëri yooyu sax jaratu ko nañ leen bàyyi ñu liggéey bëri seen sago te xam naa ni buñ leen bàyyee ñu ñu ñu libéré wu bëri dinañ bëri combat bu neex. kan a libéré ci ñoom ñaar parce que boo gis boo xool staff ay ay entraîneur am ñu koy téye kon est ce que nu Lac de lañ war a libérer pour mu dem xam nga mbëri ku nekk ak sa façon bi ngay bëree xam nga lat wax naa ko waxati ko waxati ko ñu bëri dañu dañu umpule dafa am mbëri yoo xamante ni seen façon bëree noonu la ñuy bëree am na ñoo xam seen façon bëree dañuy attaque am ñoom dañuy xaar mais buñ gisee buntu dem mais lat moo gën a néew defar si mbari te dafa am ñoo xam ne dañuy wax ni naqaree daan rek doy na mën a bëre ah kon nañ leen nañ leen libéré ñoom ñaar. bàyyi leen ku si nekk bëree sa sago dinañ bëri combat bu neex incha allah. dinañ bëri combat bu neex lan la war a moytu. non non non ma ne conseil warul bëri la dëgër xam na ëmm seen. ëmm seen xam na la dëgër. kon nekk fi naan ko moytul kii si lii moytul kii si lii loolu sax du wax. nañ leen bàyyi ñoom ñaan ñu libéré wu bëri. ku si nekk du ma kenn warul wax moytul si lii parce que xamante nañ ba pare li ngay wax nit moytu ko ki mu ja ñu jàppanteel bëri ay 30 minutes xamante nañ ñoom ñaar kon bu si kenn moytuloo kenn dara. nañ leen bàyyi ñu libéré wu bëree combat bu neex parce que loolu li ngi soxla déedéet parce que xamante nañ ñoom ñaar ba pare ku siy wax rek waxal supporter nag mën na wax nu mu nu mu bëgg a waxee mais en tant que sportif nañ leen nañ ñu bëri man loolu laay wax jaajëf.